ñu def revue boo xam ne chaque année dañ koy def mooy euh, ñu seet ci année deux mille vingt deux ñu def jéem a def le bilan wax dëgg yàlla bi ñu defee bilan ñun ak partenaires yu ñëw ñoo xam ne ay partenaires au développement la ñoo xam ne ñii ñoom ñooy les élus l'association des élus ak ministres yi yëpp. donc euh, rafet nañu le fait que ñu am ay résultats yu baax parce que amoon nañu ay recommandations yu bëri euh, di wax ne li fi gën a am solo mooy que amoon nañu ambition boo xam ne nañu fekk si biir Sénégal ñu am fonction publique locale bu baax donc finalement directeur général bi nommé nañ ko installé nañu service bi ñu ngi def ak les acteurs mooy l'intersyndical mooy les maires d'ailleurs suba sax su si yàlla àndee dina leen jox benn document bu am solo un document boo xam ne dina permettre à chaque maire sooy embaucher benn nit soo koy recruter nga mun a seet ban condition nga koy recruter donc lu am solo en tout cas bilan bu baax la si wàllu état civil également am na lu si def si yeneen projet liste nañ ko léegi boo xam ne dans l' aménagement du territoire xam ngeen ne territoire moom lu yaatu la léegi ay outils yu baax la bi ñu naree def autoroute boo xam ne moom moo nar a dem da vers euh, si bord donc ver euh, Saint-Louis il a fallu que ñu utiliser donc ANAT laaj leen parce que xam ngeen ne autoroute bi ñu njëkk a def impenses yi rek dépassé na 70 milliards et léegi nag ñu ngi anticiper donc loolu ay études yu bees la yoo xam ne ANAT am na ko am nañu également des avions qui nous permettent d'avoir notre territoire ñu mun ko vraiment bilan bi bilan bu baax la waaye ñu yem foofu parce que gestion axée sur les résultats soo demee ba def sa bilan si année bi passé nga xam ne résultat yi baax na il faut aussi nga projeter aussi année prochaine bi mooy l' année 2023 si année 2023 bi fas yéene nañu encore accentuer en tout cas suñu doole lu ñu ti def si état civil si fonction publique locale ak yeneen également domaine mais li si am solo mooy que nan la ñu fexe ba chaque commune chaque maire chaque territoire ñu mun a am seen autonomie loolu nag laaj nañu former agent yi laaj na ñu dimbale leen ko aussi en de moyens comme chaque année ñu ngi transféré loo xam ne mën na téeméeri milliards si collectivité yi mooy fonds de concours fonds de dotation ristourne wax naa ko léegi fonds minier et la sel bari na xam nañ doyul mais loolu nan lañ fex ba loolu nekk efficacité ak efficience donc loolu laaj na liggéey la boo xam ne ñun ak collectivité ñoo koy def donc di wax ne daal voilà les gros chantiers pour l'année prochaine état civil bi ci la fonction publique locale bi ci la mais nan la ñu fexe ba collectivités yi nekk autonome ku nekk mun a am ay projet porteur dans ces territoires parce que territoires yi suñu développé wu suñu émergé ci lay Sénégal di émergé loolu mooy suñu ambition. ñu ngi waxtaan waxtaan bi sax moo tax ñu dem si euh, loo xam ne léegi gis ngeen ñoom ñu ngi doon réclamer sax ay yeneen indemnité loolu yàgg na donc fay nañu leen ba pare loolu passé na à peu près ay 103 milliards millions la au niveau de la santé loolu c'est derrière nous. léegi également bind nañu donc maire yi di leen wax ne comme loi bi loolu la wax nee na augmentation su amee fonction publique locale d'état laaj na yéen aussi nga def ko maire yi am nañu commencé fay ñeneen ñi aussi ñu ngi seet su dee mun nañ ko ñu def ko su dee mënuñu ko ñu waxtaan ak seen agent yi parce que même état bi si boppam bi ñu augmenté si wàllu santé éducation ñoom ñëpp dañ ko étaler si deux ans trois ans donc loolu aussi nañu continuer di waxtaan parce que bu leen fàtte ne que maire bi dañuy wax ne que c'est la libre administration maire bi moom mooy embauche moom mooy recruter mais ñun si état bi su ñu demee ba jox leen ay financement ba pare suñu ñu xamee ne effectivement que ñoom mënuñu ñu ñëwaat encore si ñu jéem xool comme chaque année dinañu yokk si fonds de dotation bi ay 5 milliards ñu jéem seen yan la ñu war a accompagner mais am na ay maire yoo xam ne ñoom mun nañ ko def et puis augmentation bi dafa concerner yi ñuy wax ne fonctionnaire de la de locale yi ñuy wax ne non fonctionnaire ñoo xam ne ak mais koo xam ne dafa am. prestataire de service ou bien ay contrat yenn contrat yi loolu ñooñu bokkuñu donc laaj nañu continuer di liggéey ak agent yi di waxtaan ak ñoom et je crois que comme ñii commencé nañu fay ñeneen ñi aussi dañu fi dem mais loolu nag mënuñu ko def seulement en claquant les doigts dañ si war a def par étape comme état bi ni mu ko defee ñoom aussi fonction publique locale boo xam ne yéene rek la woon en 2011 loolu rek la woon mais def lañ ko réalité et loolu nag laaj na bu leen fàtte suñu fonction publique bi ñu wax nii léegi am na ay années yu bëri te depuis nos indépendances pratiquement la ñu ko am bii aussi dañu war a def ba foo xam ne dinañu am lan mooy agent lan mooy carrière lan mooy avancement la xam ngeen ne solo lan mooy intégration donc loolu yëpp liggéey la boo xam ne bu am solo maire yi ñoo koy def ak le directeur général de la fonction publique locale waaw ñu également ñaata lañu parce que mun naa jël benn commune boo xam ne wax naa ko léegi boo xam ne am na 1000 agents parce que il faut ngeen reconnaître aussi soo nekkee si commune bi loolu travail la boo xam ne war nañ ko def ak élus man élu laa ñëw naa si dans une commune ba fekk fa ay agent qui ne correspondent peut-être pas sax à la réalité mais mënu si def dara xam nga ne ñu ngi fii au Sénégal yow aussi nga jël yeneen ñeneen ñuy jël ñu ne leen que non c'est encadré par le textes léegi dafa war a am li ñuy wax ne organigramme su ñu amee organigramme bi type chaque commune respecté ko maintenant su ñu amee ay services technique fekk mairie bi attan na ko ñu recruter ay nit donc noonu la ñu war a fonctionner mais processus la nag pour nga am fonction publique locale bu baax en tout cas ñun dugg nañu fii si Sénégal si processus bi melil noonu partout si Afrique mais noonu la mel si yeneen pays développé suñu ambition mooy yeneen président mooy que ñun aussi ñu am ñaari mamel yi mooy fonction publique d'État ak fonction publique locale loolu mooy suñu ambition